day dafa du loolu sant sëriñ ndax lii day moom di la lépp day boom waaye xam ngeen lii du euh, jëfi kenn ku dul jëfi bi ku dul sëriñ bi mënoo lii ko ci xool keneen ku dul bi booba sa gis mooy na lii sëriñ bi rekk ko ban moo ko def moonu ci tàbbal nu ci xirtal e, mën du ko nu di ko defal te lu du ko defal xeeb ko at bu jot dina lu gis ni wallaay la bu du juj xaaja gudd caa yegg ndax yëf yi kët ni muy suppi koo at mu jot moonu woon ni du yëfi du yëfi neen ku ci gis sa bopp booba sa gis-gis soriwul lii ku dul Sëriñ Tuubaa ba noo ko nag bég dañ lool noonu ñi nga xam ni dañ noo def sabab ñu di ko def te ku sab gis soriwul na ngay jàpp di noo koy def waaye lii noo ngi di noonu nee na xam ngeen ni lii ku lu sëriñ tubaabu noo ko nag su du mbég booy noonu ñi mu def sabab ak sama waa kër ñu di tudde ca taakon yi lu jóg di ko def te at bu jot du gën koo mën waaw bu gën nu koo mën loo waaw nun sunu bopp nun ñu koy def noo la gën a xam te lii du sunu jëf jëfi Serigne Touba waaw ndax waaw waaw lii lu waay gàtt gàttum gis-gis xam di eh, ku dul sëriñ Tuubaa bu nu ko waaw ah, nun nag sunu cant mooy noonu la ñu def nuy sabab ñi jàpp di lépp du na te fekk na booba nu de sunu mbég mooy nun ñi ñu ko defloo ñun ñuy jaar ci dun di ko wone ba mu mel ni nooy def ba sa ko gis-gis soriwul nga jàpp ni nooy def waaye lii ku yebu dal ko sa bopp xam nga ni lii ku lul sëriñ Saaliwu Mbàkke bu noo te wax la te xam la te jariñu màggal jóg di màggal li yàlla màggal des na la màggal danañ la ma wax la màggal gi yàlla màggal ne ku ko màggal danañ la màggal li Bamba woote ne buñ ko wuute digle ci bernde looloo di màggal dix-huit safar mi ku ne jeew mi xam ne ne moom mi rekk di màggal ku jug di màggal li yàlla màggal